تُمْرُونَ mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kuréelu yaatal mbindum alxuraan bu C3S biy taxawu jongante bi ñuy amal jëm ci mbindum alxuraan moo yëgal ñépp rawatina ndongo daara yi ne gannaaw diir bu yàgg bi ñu ajandi woon bépp activité jëm ci amal boobule concours di édition 2020 2021 mu ngi xamal candidat yi jotoon na déposé ne dooraat nañu liggéey bi c 3 mi ngi xamle ne ngir wéyal liggéey boobule liste candidat yi jotoon na déposé daaw rek la ñuy jël ci njëkk bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2021 ngir jël ci ñoom ñeent fukk yi war a jàll ci xaaj bu njëkk bi ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 bi ni'mati rabbika bi majnun mbokki internet Tawfekh Production euh, maa leen di fàttaliwaat ne abonné leen bés leen cloche bi ngeen am suñu ay actualité suñu ay information ci temps bu réel ci temps boo xamante ni lépp li ngeen ci bëgg di ngeen ko am nee naa leen bu leen di fàtte également am na un numéro qui s'affiche au niveau de cet écran petit écran man ngeen ko également composer pour que di jot suñu ay information di jokkalante ak ñun moo xam seen cérémonie officielle yu ngeen am moo xam seen activité yu ngeen am moo xam seen euh, même sax euh, commercial bu ngeen am lépp lu ngeen bëgg mu jàll euh, au international n'hésitez pas d'abonner euh, ci site bi ngeen bës cloche bi mu guider leen également ngeen bokk ci ñuy jot notification yi en temps réel te information yi mucc ayib ngeen ci am ni ma ko waxee sànq tous les événements euh, sont les bienvenus ici au niveau également de notre site euh, veuillez nous contacter sur ce numéro qui s'affiche donc au niveau de ce petit écran maintenant beneen fait de l'actualité de la semaine soxal na aussi euh, ce Djibril Ngom qui a qui avait fui avec le document de la coalition benn euh, autant pour moi de la coalition Yewwi Askan Wi qui était le mandataire de cette coalition au niveau de la région de mata euh, mu nekk lu ñaaw lu ñaaw a ñaaw loo xamante ni ça n'honore pas encore une fois de plus la démocratie sénégalaise ça ne donne pas une bonne image ça ternit d'ailleurs même de la démocratie sénégalaise ñu jëm ci des élections fois Sénégal quand on euh, s'approche euh, à des élections ñu gis également de de de li ñuy wax ci wolof ay galgal ay roof galgal ay c'est vrai làmb d'accord làmb war naa mën a am galgal mais galgal bi ne tegu ci yoon parce que làmb dañ naan la sax d'ailleurs bul dóor fii am na foo xam ne kenn waru koo dóor côté bii waroo fee dóor nangam fu la neex na mën ngaa roof sa loxo d'accord loolu ce sont des les ingrédients du jeu quand mais aussi ñu respecter les règles am loo xam ne tey jii dans les normes dans un pays qui se respecte et qui se veut démocratique et qui se respecte ah dañu war a euh, le procureur de la république dafa war a ci lu mel nii te kii dañ ko war a porter plainte parce que mu tax parce que li mu def nii quand même dafa ñaaw dafa rafetul mais lan moo tax mu am loolu moo am solo voilà la bon question mooy dañu gis ni à chaque fois que suñu état yi ñuy gis nii ma Abdoulaye Wade avait seen syndrome dañu am ñu nekk ci seen keppaar ñoo xamante ni wax dëgg fa yàlla tekkiwuñu dara ci bu Sénégal tekkiwuñu dara ci réew bu Sénégal parce que tey jii bu ñu demee ba vraiment sa Djibril Ngom moo tax malheureusement il a été piégé parce que lu tax mu def lii mooy Farba Ngom moo ko occasionné ba mu am Farba Ngom moo ko def ba mu am mais tey jii au nom de quoi le président de la di jox opportunité Farba Ngom muy def geste yu mel nii moo tax président de la République ku jar yërëm la parce que autour de lui gravitent des personnalités yoo du mën a sax personnalité parce que boo ne nee personnalité vraiment euh, personnalité bu ñu koy wax dafa am ku ko yelloo mais des hommes yoo xamante ni dama xamut lan mooy seen njariñ apport ci xew bu Sénégal ak président Macky Sall parce que li orchestré visite bi xam nga président boobu mi ngi waaj a dem ci tournée bi d'ailleurs ñu nax ko tegal ko piège boobu ba mu recevoir euh, Djibril Ngom cela donne quoi mooy que le chef de l'État est le chef de parti de l'Alliance pour la République et le coordinateur national euh, euh le, le, le, le, le boss de la coalition benn Bokk yaakaar ça veut dire que tant qu'on n'a pas séparé le chef de parti et le président de la République lii mooy am parce que c'est le l'autorité politique c'est pas le chef de l'État qui a accueilli cet cet homme qui a reçu cet homme en audience moo tax ku koy attaqué politiquement nga koy attaqué mais pour man image bu ñaaw la bu président amoon un bon conseiller waroon en communication waroon na defal lu ni mel mais c'est malheureux à chaque fois ñu gis Sénégal ay nit ñoo xamante dañ leen jox ndombal tànk ñuy am alal joo xamante ni ci diir bu gàtt lañ ko am te ñooñu lu leen neex def ci réew mi te sànq Samba Sougou Gueye ku ñëw ànd ak ñoom te amul benn sanction bu ci am du sur le plan administratif du sur le plan pénal loolu nag dafa war a jeex ci bu Sénégal euh, ndax pour man réew boo ko yoree président de la tey ji waroon na fexe ba Sénégal gi man dama naan waroon nañu wax yeneen question yeneen coow ba mu des coowul ay politique ay à à droit à droite ça déplorable pour un pays qui se respecte man rek maa war a nekk président de la République kenn du ko jég man man rek maa war a am ay mairie maa war a am ay député mais nekkatuñ dans une démocratie nous sommes dans une anarchie et loolu du yoon bu ñu defoon noonu est-ce que di nga ñëw nekk le chef de l'État moo tax président ku jërë yërëm la parce que dama jàpp ne yi muy def nii yëpp en son intime conviction bu doon moom du ko def dama jàpp ne il est mal entouré et mal euh, encadré ay recevoir ay ku daw ci yow ko liñ naan ku ñuy jiñ dëmm fekk lañ ngay seeñoo yeewlu liir ñu ngi wax ay mbirum li ñoo war a jalgati dañoo nangam sàngam ka jiite mandat mais loolu du fa du fa lu bees maataam gis nañ fi élection yi passé dëkk gis nañ foofu ñu bëri ñu ngi Dakar ku ne xam ne Sénégal ñëpp moo xam fa ma dëkk ak keneen ñëpp a ngi Sénégal safulaa ñu ngi Dakar ci la capitale ñaata nit ñoo fa nekk bañ ne xaw ma ñaata lañ ko lim ci ay voix ak i pourcentage ci élection yee passé dama sax tiit fu ñu ko wootee xanaa ay jinne doon voté ba yenn bureau de vote yi sax amutoon mandataire ay géwélu président de la république ay goro président contexte des gris euh, euh, ces noms là géwélu président ak euh, goro président belle sœur belle mère beau frère deviennent également des fonctions républicaines contexte nous sommes dans quel pays moo tax njiitu réew ku jara yërëm la te ku war a xoolaat toogaayam la ak entourage ci wàllu opposition bi gis nañu Barthélemy Diaz problème bi mooy li ma wax sànq rek man dong maa war a bëre waruma am adversaire ku nekk xam na ne l'affaire Ndiaga Diouf du ma ne l'affaire Barth l'affaire Ndiaga Diouf normalement c'est ainsi que noonu lañ ko doon wooye jàppal ne ba boo moytul hmm, du am du am suite du am du maanaam bëgguñ mu leer li far li li borom wax rek bëgguñ mu leer. Parce que l'actuel chef de l'État, son Excellence Macky Sall, avait fait une émission dans une télévision de la place. Et à l'époque, il disait que lii du yoon dañ ko jaay doole mais mairie jàmbur chef d'une institution responsable premier magistrat de la ville ñu fekk la sa mairie avec des gourdins des bant nangam sangam mais ñooñu jàmm leen indi président mais liñ naan kuy ngoro moom feem bu nekk ngay génne waaye bu sëy ba ñëwee dana bëri manière de ku nekk xam ne ni président def na ci télévision 2STV Pape Alé Niang toog Mamadou Mamor Ndiongo toog mu ne muy muy casse lu mel ne manœuvre la ne ay ay ay mercenaires sax lañ jëli nangam dawar kër Barthélémy Dias toog ak papam Jean Paul Dias Barth toog mu toog mu ne mu ne carrément lii nii dañ ko orchestré dañ ko préparé non à l'époque sax boobu Barth mi ngi ci kaso bi ñu def ko liste député yi mu nekk kaso ñu def ko liste investir ko batt nag ku nekk xam sa so langage euh, véridique commencé di comme ñoom boo nekkee ci keppaar gi naan cer bi xawut naa dëng ak waroon naa kii nii ñu ne la génnal day yàq ker gi tax ñu déclenché waat l'affaire dix ans après mënuñ koo leeral moo tax dàq bi danañ ko dàqati dàqaat mais li ma ciy jeexale mooy stratégie ma naam ku nekk xam ne pexem nguur gis nañ mairie Dakar c'est un véritable problème pour que pouvoir c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal que nekk fi pouvoir bi fi nekk majorité mënul gagner mairie loolu ñu ci tax def nañ fi révocation Khalifa Ababacar Sall bëgg fee indi décret pour teg pour pour pour di ko def par décret yooyu yëpp sotteetut ñu gis ne ah batt fële ni te mën naa bombardé waat boowaat du leen neex yëpp mën naa am sax élection yi jàll ñu déclenché procédure bi commencé defar révocation lépp ngi ci parce que miir bu Dakar la ñu teg bët nañu nekk ci réew mu organisé ñii jeu les jeux démocratiques soient respectés ku yàlla jox ndam nga jël bu dee président de la république la yàlla dogal ne moom moo am majorité moom la ñëpp nangam loolu muy muy wërsëgam bu dee opposition bi ñoo ko am muy seen wërsëg ku nekk xam ne ne nguur ku dul nguurug yàlla moo dul jeex ñi ko fi amoon firaaw naak ñeneen ak ñeneen ñëpp dañoo mujj jeexal nañu respecté réew mi encore une fois de plus Sénégal yi nekk ci jàmm Sénégal war nañoo dépassé coow yi ak détails yi. muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu yem. ngir jot ay vidéo dangeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngeen bës